ah xool naa la nga laa la commencé bi nga tollee mbedd bi nga mbijee nii rek. daa doon teg ice booy. booy di la xool di la xool di la xool di la xool di la xool booy ba nga yegg si booy booy laaj ma lan moo tax ma lay xool. te nga rafet te nga mool boo xool li nga sol booy booy dafa dang wéy booy xoolal bul xeesal booy ñuulal booy fis teint bi booy xoolal moom la mais wuy ma joge ma ma dee la. yow booy xoolal dama laa am. man mii. xoolal te namuma dara sama kër la. ah bon. dara lépp laa am ak lii sama gaale la. cité bi genn wàll gi yëpp maay borom ak maag sama papa ko bokk cité bi yëpp man ak paa bi la waaye mais est-ce que benn affaire. bu fekkee ku bëri chance nga booy dama bëgg nga ñëw ñu génn booy fis kon fi nga dëkk xanaa li bu bëri dara booy féex doxantu nii rek comme dama ah. eh, Comment mais gëj la gis. jàmm nii. doxantu nii rek ah. amee gaañ foo yi. fii laa dëkk sama gàllank nii. ah fii sa gàllank. oui d'ailleurs soxna sa nga taxawal nii sax. mais xam naa ne xamuloo ko ndax da ngeen gëj a gisee quoi. waaw ah, loolu la quoi. da ngeen gëj a gisee ah. xam naa la de. chéri kii daal fi raw mu may woo di ma draye. xam naa ne sa xarit bi comédien bu baax a baax la rawat nag nee na kër gi nag <laughs> moo xam moom këram la. <laughs> bàyyi nga ma de xam nga rek daa comprendre mais aussi sa jabar la ko xam. na xorom de. tuuti nee na kër gi këram la. mais mm, nama naa la doom yaay. maa ngi nii ma leen bàyyi ngeen dem. ngeen si biir defal la dara day laqe bàyyi bàyyi ma bàyyi leen. non non dem nag si defal la dara. ci biir day laqe bàyyi. Hmm. courant ba nga may maas ma taxaw nii. waaw mais comme xam nga gaale bi dee fi jaar. waaw xam naa ne gaale bi. ah jërëjëf yow dinaa la xaar jaajëf waay ok fii. ñamax ñamax bi mu yaa boo yaa neex rek garaa mu yow yow daal nii rek nga fi nar suba nga changé tuba ginnaaw suba nga changé bët wóor na ma ne sa sa sa sa kii bi ngay lonko te ginnaaw oto jàmbur yi nga koy gaar. yow bëri nga wax doo noppi. yow may ma sama jàmm fii ngay def jigéen bu fi yor xaalis nga doxaan ko ñu bëgg a am jëkkër am far yow mii lañuy ñuy wër sa sànni waaye yow munoo yor jigéen. ndax sa tuba yi ngi nii ceinture woo ko ba mu dëgër nga def waa daa obligé sa tubay bu yolam te gis nga nag boo gaawul génn koñ bi dama lay yuuxoo nii nii nit ñi ñëw wàllu sa Thank you.